la violence faite aux femmes dafa war a jeex tey rouge bi loolu lay indiqué jaune bi or lay indiqué nous sommes des braves d'armes le rouge la couleur rouge mooy la brutalité la couleur rouge moom mooy métital yi ñuy métital la couleur rouge mooy li ñuy def chaque jour te mënuñu wax la couleur rouge mooy mbéj yi ñuy mbéj devant monde devant tout la toute la presse devant tous les caméras la couleur rouge mooy toroxal yu ñuy toroxal jigéen ci biir assemblée biir fi nga xamante ne moom fa ñu waree am baat pour ñu signer ñu suñuy loi pour ñu voter ñu suñuy loi waxal ñu lan mooy suñu ay kaddu chaque jour mais bu fekkee dañoo dem ba biir assemblée ñu war fa wax suñu ay kaddu war fa jàllale kaddu jigéen yi ñu ñuy dóor loolu moo tax tey jii ñu taxaw beneen chose bi mooy buñ demee ba assemblée war fa voté ay loi war fa wax non à la violence faite aux femmes war fa wax lan jigéen ñi seen dund war fa wax lan jigéen ñi métital yi leen di dafa war a doy war fa wax lan la femme c'est war fa wax lan jigéen ñi ñoom ñooy doole dëkk bi jigéen ñi ñoom ñooy jur jigéen ñi ñoom ñooy doole réew bi ah defuñu ko di mbéj ay jigéen di dóor ay jigéen loolu moo ñu fi indi leneen indiwuñu fi leneen ñoruñu li ñu ñor rek mooy que ça a les autorités compétentes ñi ngi leen di tàllal couleur jaune les autorités compétentes ñi ngi leen di tàllal couleur jaune couleur jaune mooy lan c'est la richesse c'est la femme c'est la beauté donc s'il vous plaît les autorités compétentes ñi ngi leen taxaw nañ fi collectifu femme technicien de surface taxaw nañ fi collectif yëpp taxaw nañ ñëpp taxaw nañ chez les dames ñi ngi fi dafa doy ñi ngi fi aar jigéen ñi ngi fi ñëpp ñi ngi fi mënuñu lim ñëpp mënuñu lim ñëpp te ñooñu ñooy couleur jaune donc dès lundi duñu yem ci wax kese de lundi dinañ déposer suñu plainte ci procureur incha allahu rabbi parce que combat bi du yem fii tey dañ ñoo war a valoriser dafa doy. dafa doy dafa doy dafa doy dafa doy dafa rek tey je représente aujourd'hui les femmes uniquement un seul but combattre la violence faite aux femmes on a deux couleurs la couleur rouge c'est la brutalité la couleur rouge c'est la méchanceté envers les femmes la couleur rouge c'est la violence faite aux femmes. Et là, on a une couleur jaune. La couleur jaune, c'est l'or, c'est la femme, c'est la beauté, c'est tout ce qui est c'est tout, tout ce qui est merveille. Donc le seul message qu'on a pour lancer, c'est de parler avec les autorités. On appelle toutes les autorités compétentes pour mener ce combat, pour avoir euh, euh, euh la réussite, pour avoir, euh, comment dirais-je, pour euh, voilà c'est l'émotion parce que on est hier on a on on on a on n'a pas pu dormir parce que euh, euh, quand tu vois une vidéo euh, au niveau de l'Assemblée là où nous on a le droit là-bas euh, de de parler au nom de toutes les femmes de voter les lois pour les femmes de dire non à la violence et que tu vois un homme je sais pas si c'est un homme ça euh, brutaliser une femme ça c'est c'est on l'accepte pas on veut que ça disant un homme frappait une femme. Voilà, c'est ça que nous déplorons. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour dire non à cette violence. Mmh, voilà, on, on va déposer une plainte dès lundi au nom de tous les collectifs des femmes au Sénégal, ici au Sénégal. On va déposer une plainte parce qu'il faut que ça cesse. La violence, ça doit cesser. On est des, on est des reines, on est, on est de l'or, on est, de, braves femmes, on se réveille à 4 heures du matin, on, a, des enfants euh, à la maison, on laisse nos enfants à la maison, on vient jusqu'au travail, on nous brutalise. Mais c'est quoi On est dans quel pays On est dans quel pays Donc on remercie tout le monde. Et Le combat euh, ne fait que commencer.